di seetaan Joker TV euh, tey nag dañoo seet si woon ki nga xam ne yaakaar naa ne kenn dootul ak présenté ñu koy wax moomoo Novita fi nga xam ne que ne moo di Liberté si Deux Voies muy def benn ouverture bu mag a mag a mag ñu daal di ñëw seet si ko kon nag dañ koy bàyyi mu daal di nuyoo ñu daal di koy dalal mu wax ñu rek tey ouverture bi lan la nal moom maa ngi lay nuyu di la ziyaare bu baax a baax. Eh, maa ngi lay fay Touna eh, di nuyu Sénégal du nuyu askan wi yëpp donc euh, du nuyu nag Sénégal bu baax a baax du ñëpp ñi nga xamante ni. Eh, samay jigéen lañ ak samay xarit maa ngi leen nuyu bu baax a baax eh, di gërëm ñëpp di leen sant vraiment kontaan naa. Momo tey dañoo gis macha allah boutique bi nee naa nekk ne c'est pas la première fois aujourd'hui eh, tey ñu gis la ngay def ouverture bu mag ñu gis fii ñoo xam ne macha allah ay célébrité lañ ñëw dooleel la tey loolu nañ ko ko gisee. ba loolu lañ koy sante suñu borom rek quoi te loolu lépp bu amee ñun suñu ñàmbaar quoi banque xale yi jigéen ñi ñoom ñoo ñu jàppale. ñoom ñoo téye suñuy mbagg parce que feccum liir bu neexee da nga ko yaajaatee ci mbagg yi ñun li ñuy def dañ leen koy delloo parce que tey jii bu ñu defaree bitik bi ba mu taaru wala defaraat benn affaire pour xale yi jigéen yi la te wax dëgg yàlla ngay dem ci yoon bi boobu ba léegi ñu lay gunge te amoo ci benn kalaj-kalaj kooku sant yàlla la. mais lan mooy sa secret at xale yu jigéen yi parce que gis naa que ne xale yu jigéen yi macha allah jox nañ la bopp trop lan mooy sa secret moomu. bo jaay lu bax ñew ci yow sëñ Fallou ba waa ñewé nako dama bëgg bay ren jaay def nako ko utal lu bax tay aw fi nit ñi jaar jeexna na. kon yow dafa melni fofu nga jaar daan maa ngi foofu de. <laughs> waa léegi lan nga ñu mëna wax ki li nga xam ne que ne tey moom nga indi ci lu bees ndax gis né ma sha allah euh, gis nañ fi yu doy waar daal. Euh, Tuna dama bëgg nga xam ben mbir ah. man métier mi dama ko bëgg mu nekk lu ma mu nekk lo xamante dama ko opté bama ñëwé ci mbiri dama ñëw indi benen tous manam dama ñëw def benen affaire indi benen tous té xam nga jaay kat yi bari nañ fi mais ku nek ak say bagage ak say mbir ak ni nga koy defee walaay azim yeen say da ngay gis lu nit ñu bari dé mais ay novita lañ man eh copy la dé <laughs> model la ci dëgg bi. number 1 model la model ah modèle référence nga aussi. waaw référence parce que. Eh, nit mom so nekké ndaw nek ci yoon nango liggéey té nekko ci lu ñàkk fayda jappal ni yaang ci yoon bi té en plus su ma amee lu may wax wala lu may dolli damay doli suma rakki yi nga xamanteni ni ñoo ngi sama ginnaw donc daneen wax képp ku ci nekk li nga nekk nga téye ko bu baax japp ko té wo bàyyi té xam affaire yi dina gëna baax inshallah té té té bul xadi mais tay suma bëggé xam Momo na vita carrière am fan la débuté ba mu won wita dafa nek un gars bo xamanteni débuté na fu metti hein ah, donc man amilana jayna na pat jayna na donc dem na foire ngay gis ci sénégal yépp dem na fofu jaay amilana sandaga dem na peut-être sen jayna ay lam jaro, xam nga def na yu bari hein ah, vraiment donc fi ma jaar nak suma jaar jaar euh, metti trop euh taxul ba légui ñing koy muñ di gor gorlu donc di dund li nga xamante ni mooy suñu suñ suñu suñ suñu suñu fierté daal. Mm-hmm. Euh, Momo lan ngay conseiller jeunes yi nga xam ne ñu ngi ci yoon bi tey bëgg a mel ni fi Nafita tey lan ban conseil nga leen di jox. Ah, conseil bi ma leen di jox mooy ku ci nekk rek ah, ci li nga nekk nga gëm ko rek te nga liggéey liggéey xaru donc euh, wax lu tuuti liggéey lu bëri quoi. Eh, loolu mooy yoon te loolu mooy àdduna quoi te fi mu ne nii xam nga ni àdduna bi ku fi liggéeyal ku ne rek perte nga vraiment nañu nañu nañu nañu gëna fonkat liggéey quoi gëna fonkat seen bop bu baax a baax. moom su ma bëggee xam sa relation at ñi nga xam ne que ne mooy célébrité yi tey lan nga ma ci mën a wax. ba xam nga suñu borom moom mooy xam di boole te yàlla moo ñu boole ay ay nit ñoom xam nga ay nit lañ comme ñun dañoo nekk nit ñu baax yàlla boole ma ak ñoom ku ci mel ni tey euh, sama grand griffe sugu xam nga gis nga ko fi euh, ma grande sœur ñaatam ba gis nga ko fi ku baax la vraiment ñëw nañ euh, dooleen ma jàppale ma soutenir ma te nit moom njariñ njariñ leen koy doyee kenn du ko lekk kenn du ko naan vraiment. Momo pourquoi yow nga yem ci li nga xam ne que ne mooy jaay xale yu jigéen ñi kese pourquoi pas xale yu góor yi amuñu fi wàll. waaw mais xam nga àdduna moom day dox te projet yaa ngi ci kanam lu ne mun naa am. kon ñu xaar surprise bi at mu Monovita. incha allah lu ne mun nañ koo xaar bu neex. baax na kon ñu doxal ba ci kanam ñu ñëwaat. asalaamaaleykum ñaatam nuyu naa la. maa ngi lay ziar sister di nuyu euh, ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi ñuy seetaan ci Joker TV. waa sa jongo ma lan la. def mu tàng rek mu def euh, comme ni ñuy wax rek naan da ubbi sa armoire rek mu wadd rek nga jël sol. nga di jël sol. waaw noonu la xam nga man dama bëgg teen waaye te tu es très belle macha allah. merci ma chérie gis naa la gis naa la maa ngi lay remercier bu baax a baax ci choix bi déjà. merci beaucoup chérie en fait tey dañ la fekk fi nga xam ne euh, si Momo Novita muy def ouverture am. ñu ñëw fekk la si tey lan nga ñu mën a wax ci Momo Novita ak seen relation yéen ñaar. déjà Momo Novita sama frère la.

parce que Novit Momo boo ko gisee ak ni muy mel ak client am yi euh, dafa am benn euh, kii boo xamante ne dafa am seen diggante ñoom ñaar euh, cliente bu ci jóg da nga naan man la gën a bëgg mu nekk respect mais également nekk xaritoo ak àndandoo leer na ma ni fekkew ma ko mais je sais que moom ak ay clientam du prix wala leneen moo leen di boole parce que nekk na koo xamante ni da leen jël comme ay sëram am na ñoo xamante ne c'est ses amis intimes donc tey lool lool xam naa ni loolu lañ ko taamoo mbaaxam peut-être waaw ku baax la <laughs> tey lan ban conseil ngay jox jeunes yi nga xam ne tey ñu ngi si milieu bi di jaay mhm. tey ñooñu lan nga leen di conseiller tey dama leen di wax rek ñu am jom parce que tey euh, comme ni ma la ko waxee bi may entamé sama ay propos euh, moomu topp nañ ko bi mu dooree ba léegi ak fi mu yegg si tey donc amul jom doo def loolu liggéey bi nag day metti doo nelaw doo tëdd kenn du la gis say xarit du leen gis donc loolu da nga koy ñeme loolu mooy indi lii et puis man je que lii lu ndaw la par rapport ak vision bi nga xamante ne am na ko je sais que euh, dina di ngeen di ngeen ci pas dans pas longtemps di ngeen gis mu mu gën a am lu gën a mag lii wala mu am yeneen yu mel nii te loolu lañ koy ñaanal donc ñi nga xamante ne ñu ngi ñuy seetaan euh, di leen wax ni comme ni ñu koy waxee tous les jours rek liggéey boo ko defee rek mu fay. Euh, boo amee jom ci li ngay def bëgg li ngay def yàlla da ci teg loxo et puis euh, loolu moom à chaque fois du ñu tàyyi di ko wax les jeunes yi nga xamante ne ñoo ngi fii dañoo am ay références yoo xamante ne ñu ngi ci biir dëkk bi bu ñuy xool ci ñoom je sais que ni dinañ am xam fan ban yoon la ñuy jaar ba réussir macha allah. ñaata macha allah yow moom nee naa la kenn dootu la présenté fii nga xam ne que ne mooy ci réew mi euh, parce que ñëpp la xam macha allah mm-hmm. tey nga nekk tamit animatrice di liggéey ci métier boobu aussi tey lan nga ñu ci mën a wax sa sa wàllum liggéey. bon nek na métier bo xamanteni ni euh, déjà il faut nga bëgg ko donc ko mun a def parce que bëri na ay euh, ay galancor bëri na bëri na coono euh, bëri na également lenen lo xamanteni xamul nu ñu ko expliquer moy nit ci dañ lay tek fo xamanteni peut-être quelque part yegguloo fa ci côté comme comme ci côté lenen ak lenen ak lenen donc déjà bokoy def il faut nga mëna encaisser il faut nga mëna mëna bëgg li ngay def parce que boo ko bëggulee ko def voilà. Euh, ñaatam man dafa am loo xam ne macha allah à chaque fois dama lay bëgg la ko poser mais xëy na tey la ko yàlla doga tey ñu mës a toog parce que da gis millier animatrice dafa nekk loo xam ne dafa doy waar kon ni nga ko waxee tout à di nga dégg lu nekk di nga gis lu ne te yow teewul ba nga ci nekkee ba léegi macha allah tous di bois kenn mësu la dégg si dara lu ñàkk fayda euh, tey loolu lan nga ñu ci mën a wax. question boobu bëri na lu ma ko nit ci di poser mais bon j'avoue que métier bi maa ngi ciy bëgg a yàgg. donc maa ci ciy bëgg a bi ma koy commencé je pense que xalé bu ndaw la won ba légui magum jëm la donc euh, bi ma koy def également nekkoon na lo xamanteni passion la. Euh, ma ma commencé ci mais euh, bon comme ni nga ko waxee léegi rek ñu ci bëri dañ may poser question boobu kenn mësul la dégg ci dara kenn mësul pourtant damay def dé da ngeen ko dul yegg rek. yëgaguñu ko nak <laughs> da ngeen ko dul yegg rek damay nëbbatu di ko def. <laughs> <laughs> non damay nëbbatu damay nëbbatu donc euh, bon man dama ci nek mais ku nek ak sa vision bi nga am ci aduna c'est-à-dire man xëccoowu dara man limay def je sais que euh, bëgg naa ko et modestie à part mën ko donc su ma ko dee def également dama ko def liggéey defuma ko mu nek lo xamanteni tay ça va me servir à faire telle ou telle chose c'est-à-dire euh, tay ji euh, mun mun naa jël sama tour par exemple je donne un exemple def ci lenen lo xamanteni ni bokkul ak loo xamante dañ makoy koy bu boba aussi day parce que dañ naan non ci télévision la nek ci radio la nek motax lu ci nek bu ma def rek damay damay xol li may def et puis hier euh, bi aussi def ci am solo donc ci loolu damay gërëm samay waajur bu baax a baax parce que comme on dit tous les jours en wolof wet gore wetaliku gore te bi ci nekkee ba légui ma ngi ci et puis euh, di sante yalla rek sante yalla sante sant sutura aussi <laughs> parce que comme ni ma la waxé légui rek euh, jeune fille laa woon euh, def naa mais peut-être nit ñi yëguñu ba légui ma ngi ba léegi yaa ngi voilà donc ba légui ma ngi sey donc euh, voilà sante yalla rek mais ce liggéey tay euh, non nous ko mën a at sa mariage parce que xam nga tay des fois da ngay nek plateau goudé wati et tout tu vois légui non nan nga koy gérer at sa ménage ba xam monsieur du wax nga des fois monsieur ñu ki ndax man sama boss mom des fois sama goudé bee mu wax non non man nak yalla daf ma bolé ko xam ne il est tellement compréhensif déjà nek fi won il était à Paris tant il la ñeu Sénégal donc euh, tàmmuñu won sax dekk ñun ñaar mais on apprend à vivre ensemble parce que <laughs> aussi dama don am sama jot di liggéey dem di ñeu mais metti won na surtout quartier général

Euh, da ngay peut-être mën préparer xëdd bi donc c'était un peu difficile un peu difficile quand même parce que du ma nelaw lu bëri et puis euh, voilà nekkoon na loo xamante ne lu kii mais à part quartier général bi le mois de Ramadan là dañuy dañuy jéem comprendre comprendre comprendre comprendrante comme on dit parce que tamit man limay may liggéey à la rajo bëriwul je fais 17 heures 18 heures à part lolu dama am sama liggéeyu bopp boo xamante ne maa koy def te lolu xam nga amé amee sa liggéeyu bopp mom à tout moment heure bu la nexé ngay genn nam empêché wu ma ben yoon ma def lu nga xamanteni mom la wara def ci biir kër gi voilà. Euh, ban conseil ngay jox animatrice yi nga xam ne que ne macha allah ñu ngi ci milieu bi tey boo leen doon conseil lan nga leen di conseil voilà c'est un métier boo xamante ne actuellement c'est prisé parce que man ñi koy def ñëpp pratiquement xam naa dinañ ni sax kii est-ce que so parce que du ma leen sax xàmmee <laughs> tellement que y a beaucoup de personnes qui le font et puis ma leen di ma leen di encourager euh, bu nekkoon lu bon kenn du ko toppandoo bu nekkoon lu bon également kenn du ko xalaat def donc ñi nga xamante ne ñu ngi ci dañ leen di encourager bu baax a baax te puis euh, di leen wax ni rek c'est un métier comme tout un métier

donc déjà def presque plus de dix ans donc il faut préparer les émissions préparer les questions avoir savoir la personne avec qui on a affaire quoi parce que c'est important des fois nga gis animatrice des wala animateur questions, poser question mais qui me poser question da koy damé ci tibir ci biir ci débat bi ça me fait très mal c'est parce que la personne n'a pas préparé les questions et puis lolo mon xam naa ni ci seen rédaction yi dina leen ci gën a jàppale bu baax a et puis euh, bañ def comme qui euh, ku que war nga am sa sa sa personnalité mais également am sa sa sa loo xamante ni boo ko waxee ñu xam ne yow ko voilà mon bañ am ay deux cent poté ma da am ay deux cent ku am sa personnalité

amna ci métier yëpp parce que dañuy dégg nit yi di ko wax donc euh, buñ ko waxee certes peut-être am na euh, et puis euh, nit dafay am fulla quoi c'est-à-dire tey jii yow boo nekkee jigéen kee nekk góor ma je pense que am na loo xamante ni tey du ma ko du ma ko def parce que dama bëgg génn télé du ma ko def parce que dama bëgg wax ci micro

voilà par principe je ne le fais pas donc nit aussi parce que lolu day jeex te bu te bu également caméra micro donc lolu aussi na ci baye xel nit da ngay conscient li ngay def des yow da ngay bëgg rien du tout quoi tu vois un peu.

Euh, tey dañoo ñëw fekk si la fi nga xam ne que ni moo di Momo Novita muy def ouverture am te ku wax a Novita wax gi du ni ngeen mel yéen ñaar tey boo ma doon wax ci Momo Novita lan nga ma ci wax seen relation. mais xam nga tamit xam nga tey jeunes yu bëri soo xoolee tamit si sina bi laa nga xamee ñu bëri te am ñoo xam ne ñoo nekkoon Sandaga ma xam leen tamit te ñun tamit ay ndaw lañ jaaroon fu metti mooy. li may wax chaque jour rek kenn mësuma dimbali maa dimbali sama bopp tey sama gisee loolu noonu ma gis seen jeunes yoo xamante ne dañoo nekkoon Sandaga di jaay ay ay jaaro lu ne ba yegg fi yàlla dimbali leen kon ñooñu dañoo war a gën a encourager gën leen a fonk gën leen a jàpp ndax am yombul xam nga te léegi soo xoolee léegi dëkk bi yàqu na yàqu boo xam ne tey jeunes yi bari dañoo ñàkk fayda parce que liñ topp mooy TikTok bi di wàññee toog fecc ak lëmbal ak nangam nangam parce que loolu fa loolu kañ lay jëmale réew fa lay jëmale réew. bu njëkk ba da ngay da ngay da ngay ambulant baa ngay gasi mbalit baa ngay fori biteel xale jigéen sax dañuy xeeb mais tey xale jigéen doon la xeeb tey ñooy tourné ànd ak yow parce que am nga loolu yàlla dénk léegi nag la ma tax jeunes yi léegi mënuñu góorgóorlu léegi jeunes yi léegi bëggatuñu loolu lu ñu bëgg mooy toppee ak coog ak sukk ak directeur ak capot yaa fi nekk kooku dalay tardel àdduna soo fa nekkee ndaw da ngay wuti muy jigéen di góor nit lu yomb loo bëgg lu ne fi nga bëgg a doo fa yegg mooy li nangu loolu wax rek képp bànneex boo gis yomb dafay tiis da nga koy ñemee bànneexu soo ko ñëwee doo bànneexu tey soo xoolee tey ay ñoom moom vitamine ay booy ndaw lañ tey suñ fi nekkoon di ñàkk jom li ñuy investir dañ ko investir xam nga tey soo xoolee tamit su moo Talla Sandaga mais ma xam ko ba muy booy bu ndaw doon jaay ay table ba yàlla dimbali ko ne tey genre jeunes yi mel noonu su ma leen gisee damay kontaan man dama bëgg nit ku am jom man du ma a ma fréquenté ku ñàkk jom du ma a ak ku ñàkk jom parce que dara yombatul léegi te bu njëkk ba neexoon na la mu neex soo demoon jaay sax da ngay am mais jamono bii neexul ndax léegi soo xoolee jeunes yi dañoo bëgg lu yomb parce que bëgguñu lenn lu lenn loo xam ne la jafe lañ loo mënta liggéey ne da koy xeeb parce que mu mënoo fa gis benn milliardaire mu ne la damaa damaa jékki-jékki am milliard su la expliqué woon jaar jaaram ah da ngay da da ngay toog di jooy kon na jeunes yi gën a góor góorgóorlu gën a nekk jàmbaar gën a nekk vainqueur gis nga ku topp xale yi ba bam tax la nga ñak jom ba gor gorlu billahi di nga tok fa ngay mujjé moy nek pa yu ñak fay do may 1000 francs franc rek yoro fofu PS wala yoro fofu luma jëndé li parce que amul sens té nga ki lepp loy dund sa adun lepp loy dund sa adun te doo ko sóoraale yaa ngi sonal sa bop na tay li muy def ni du ko sóoraale mooy ba muy liggéey dafa tambalé ci mëna mëna tambalé ci ñaat si ba yalla yéggalé ko fi mu yegg tay dëkk bi mu nekkat su su jógewoon fii tamit dem beneen dëkk muy Amérique de France dem dafa sam pour liggéey yàlla dina ko won yoon parce que nekk na nekk na bokk na seen nante nga xamante ne dañoo ambulant rampe bay bëgg a dee soog a yegg fi xam nga day tax soo tukkee da ngay gën a yeewu pour xam kenn du la kenn du la mën a nax mais am na foo xam ne soo fa nga benn nit rek jox ko benn dix millions ne ko dama liggéey ko nu muy xamee valeur xaalis ki ki bokk la ki ñu yëkkati xaalis pour dimbale ko xam nga nit ñi nag ñoo war a mën a góorgóorlu ah jeunes yi bàyyi moytu TikTok bi fii TikTok fayul kenn dara ay dama bëgg siiw ak bëgg bës ak nangam nangam jëmul la fenn ku sañoon tey doo siiw ndax soo siiwee lu ne di ko dégg ndax soo siiwee coono àdduna bu ne dinañ ko teg lu xew ñu ko teg si kaw su ñoon daji magasin bi sa nga siiw romb ñu ne ñoom ñoom ñoom Griff fi jaaroon xam nga na nit ñi moytu te gën a góorgóorlu te àdduna góorgóorlu fi am te benn na nit ñi yéenante jàmm ñi am xol bu rafet ak yërmande. te bàyyi lu waaye am rek ñu bëgg ko wala ñu bëgg ko soxre wala nu waaye mer rek ñu ne da ko àbb wala mu ko wala yor wala dañ ko lebal xaalis wala nangam nangam fi ñu yàlla li yàlla bind mu ngi si doomu aadama yi yàlla bind mu ngi si yi am na doomu aadama yoo xam ne yàlla mooy ni sàmmal boppam te moom moom li ma koy conseil mooy lu mën di def si liggéey mooy na génne asaka di dimbali ñu war a dimbali am yërmande parce que yërmande mooy lépp yërmande soo ko amee foo jëm da ngay ànd ak moom waaw li ma koy ñaanal daal yàlla ko yàlla doon sutura jomam gën a yokku te yéen tamit journaliste yi ngeen góorgóorlu journaliste yi yëmul kër de loo mën a góor góorgóorlu ak loo leen gën a mën a jàpp jàpp leen ko bu leen nangu kenn kenn kenn bu leen nangu kenn ku leen di jariñoo parce que àdduna jàngal ba jàngal ba ba mokkal nga dem wuti sa fu bopp mais bu ñaan yàlla nekk si nit ba xëy tardé ndax man mii di waxee yow liggéeyal naa nit Amérique ma jëm ba ko. xam nga nga am patron dem ba am sa patron loolu yombul xam lu koy may mooy nga góorgóorlu ne ah man de lii sama patron am war naa ko mën a am ëllëg mooy nga ànd seen ngëm-ngëm kon yal na yàlla dolli rek te may leen jàmm bu baax a baax a baax. tey su ma bëggee xam fan nga débuté parce que macha allah yow moom kenn dootu la présenté ci réew mi euh, tey bu ma bëggee xam fan nga débuté at fan nga jaar tey ba egsi tey fii nga egsi nii macha allah. waaw ah, man soo man. Euh, 93 fekk na ma fàq sunu kër pour bëgg lu ma wuti sam papa sax mu doon wër ba ñaan dañ maa liggéey dañ maa naawtal fekk naawtaluñ ma parce que mënoo mënoo nekk si kër gu mag war a jéem a nga ne ma bëgg a tekki ya-, yaay taaw foo nga dem liggéeyi may dem di luy ay troto am ko may fay ma koy luyul ay troto ay vélo ba ma jógee foofu ma dajale ba am presque 1400 dem jëndi bant yëpp jox ko benn booy mu ma defal troto ba am si ñett di ko luyee di ko loué ba si ak ma jënd vélo après si vélo bi nag dama doon dama doon jox ay nit ñuy loué may dem di ambulance ji nek pompier su jógee pompier dañu jógee pompier di jaay ba asalem wóor asalem su demee ba ba yegg ya veste foire dañ suñuy kees dem nga si mbalit kër gu nekk ñu fa ay pan cent franc su fukki dërëm di di tour di fore ay matière ay biteel six heures matin quatre cinq heures matin ñoon yeew dem pompier ya, sar sunu kees jaay yàlla def di def di def di def di def may jënd ay boxer ay scooter du loué ya. xam nga di di dem jóge fa dem Guinée Bissau ñëwaat nekkaat si di rangu ay bagage di yóbbu si àll bi di jaay fu ne di jaay nangam nangam di rampe xam ba tey yàlla dolu man nag kenn mësuma jàppale visa kenn mësuma xutal au contraire maa ko ay nit may ñi dem gratuit xam nga tey ku ñu fekk Amérique tamit si ay business lañ nekk mooy yore magasin yi mel nii yegg yor ñaari loxo xam nga moo tax Euh, damay toog ba si yàgg damay damay damay feer sama bopp ndax man su ma neexee sax damay def lu ma neex parce que damay def lu neex sama yaay lu la wax yaay lu waay mën lu ma waay mënti wax bu mu la met ndax kenn dimbalul sa doom sa doom sa doom mooy dimbalewaat te mooy xuus jàll kenn jàllewu ko parce que loolu lañu fi am gu ndam rek ndam rek nit moo koy wutal boppam ak fu mu mënti doon parce que da ngay ànd ak nit sa du la yéen a jàmm nga bokk nit fenn di liggéey muy bëgg nga dee man àdduna foo nekk bàyyil xel si li ngay def te nga baye xel doomu aadama parce que so toogee tamit nga da nga bax de trop da ngay loru da do am prothèse ni da ngay baye xel da ngay ànd ak nit sax tay so xolé Sénégal da ngay xol da ngay ànd ak ñett xarit kenn ñew di wax ak yow ñu mer non non non dafa am jëkkër non non am na far parce que moy jalousie moy soxor mooy lu ñu la rek duñ bëgg am ci ndam waaw mo tax aduna dal fofu nekké li may wax rek gor fonk say wajur am yermande am xol bu rafet di saraxe di gën a asaka di dimbali ñi nga war a dimbali soo ko defee doo sonn yàlla rek moo lay aar du doomu aadama bu lay aar si àdduna waaw muy ñëpp nag ku mënti doon ok merci beaucoup kontaan nañ trop si dalal bi ñu la dalal si Joker TV kontaan nañ si conseillers yi aussi di leen ñaanal rek seen ànd bi yàlla gën ko yokk yàlla gën leen saxal ci barki Seydina Mouhamed merci beaucoup tey rek ñu ngi si Momo Novital ni ma leen ko waxee woon tout à l'heure ci ouverture yi ñu daal di fekk si macha allah nee naa leen ay xaritam at ay am di jàmm xanaa rek dañ leen di bàyyi rek ñu daal di wax lan lañ xam si ouverture bi at li nga xam ne que moom lañ xam si Momo Novital sëñ bi maa ngi lay nuyu di la dalee si Joker TV. waaw maa ngi siyaar bu baax a baax a waaw tey sama copain moo ñu fi indi ah Novita sama seex sama xarit sama lépp ah. man benn xarit la muy Novita quoi mais boo gisee lu tax ñu ñëw xam nga moom liggéeykat la jàmbaar la quoi teel a xëy guddee wàcc la ko ñëpp xamee comprendre nga ah moom liggéeykat la moo waral suñu teewaay xam nga ñu nag ñoom dafa yàgg ah, depuis deux mille depuis xale ba léegi sax laay wax ko ñooy ànd bu dul dara ñooy ànd comprendre nga waaw ah, moo tax nit bu nekkee si benn affaire bëgg ko da ngay ñëw jàppale ko ci nga gën ko ci la comprendre nga ah yalla def nak mu nek ay place place place place inshallah merci beaucoup saka du rafet na xana ma tourner wa ci benen xaritam bi rek ma ngi lay nuyu. maa lay fay soxna si. ça va bien. ça va alhamdoulillah tey lan nga ñu mëna wax ci Momo Novita fi nga xamne que ne machallah muy def inauguration nee naa la boutique bi mom du lu bees ñep xam nañ ko mais tay mu defaraat ko ba mu gëna a lan nga ñu ci mëna wax. waaw Novita mom lu mu ci mëna wax tuuti la rek quoi. parce que nit ku baax la et puis nit ku euh, bëgg li muy def la quoi parce que boo xoolee maa ngi doon wax léegi parce que 2012 ba léegi ñëw maa ngi ko xam 2012 boobu moo ngi marché Sandaga ñu nekkaale fa xam nga loolu du du lu yàgg la 2012 ba 2013 ça fait 11 ans xam nga loolu du lu ndaw koi boobu ba léegi lii lañ ko xamee daal nit dañ lay wax loo nekk rek gëm ko quoi gëm ko boo si gëmee rek yàlla te si jàppale te moom ci loolu la nekk ba tey yàlla indi.

en fait dañoo ñëw tey ñu fekk la fi nga xam ne que di mooy ouverture Momo Novita macha allah nga def jongoma def sa couleur été bu baax jaune te dama bëgg couleur jaune euh, tey ñu fekk la fii ci boutique bi tey lan nga ñu mën a wax ci Momo Novita. Euh, nit ku jàmbaar la macha allah moo ko xamee yàgg na ça fait des années lu ma sol moom ko jaay moom rek laa wóolu. yow daan dafa mel ni Novita rek ngay topp. boom kese point. merci beaucoup. Euh, salaamaaleykum soxna si maa ngi lay nuyu ça va soxna si maa ngi lay ziar. Euh, dañoo ñëw tey fekk la fi nga xam ne que day moo di Novita muy def inauguration macha allah tey ñu ñëw fekk la fi lan nga ñu mën a wax si Novita. Euh, Novita c'est un ami c'est un frère donc man ak moom du tey <laughs> nit ñi Novita lañ xam ba ma koy xam du tey euh, c'était en 2016 boobu maa ngi def li maa ngi def je pense licence 1 ci lañ xamante boobu boobu boobu temps rang la woon. donc man ak moom kon xam nga ni lu yàgg la ba tey lii am donc bu amee duñ bett parce que il a travaillé forcément sonn si ñafekat ku xamul démbam mënu ko waxal tey donc du coup man dama xam démbam donc mën naa taxaw waxal ko tey donc li mu am nii tey da ko mérito parce que daf ko ñafe daf ko liggéey ba pare yàkkamtiwul donc yàlla nekk njiglaayam yàlla nekk muurum mu nekk ay yeneen novita novita yu gën a bari loolu laa koy ñaanal ndax nit ku baax la franchement. mais yow dafa mel ni ma chérie Novita rek ngay topp de ku la gis ni nga sañsee nii xam ne daa mel ne Novita rek ngay topp. ak Novita depuis 2016 la <laughs> à momo <laughs> loolu yàgg na donc moom rek la ñuy topp comme comme ni nga ko waxee.

maak moom dañoo yàgg du tey quoi man ak yaayam la woon ak man yàq ko benn yoon sama kanam la daan nekk ñuy àndandoo di liggéey centenaire Petersen Sandaga mu nit ku baax nit ku yàlla baaxal li olof naan jàpp te bàyyiwoo as goro koy def te ba mu jàppee ba léegi bàyyiwul sama ngénte fii la jóge te xam nga ne jaaxatu yére dimanche rek la am fii ci Ndakaaru mu jóge ba fii ñëw ba Touba sagal ma ci samay biiri mbokk ak samay biiri nawle kon kooku aw ma fayam fàttewul la ko fal parce que olof dana ku fàtte la la fal la lay follee ngi ñëw te jëmm la joo xamante ne si ku ko lebal ker mu fay la guddi nit ku baax la dama koy ñaanal rek yal na ko yàlla sàmm làq ko fa yàq egul ku koy xaar yal na xaadi quoi boolewul dara daraage wax day wax tuuti jëf lu bari quoi moom noonu la ko nit ñi xamee su may wax ci moom du xam sax na parce que am na ñaanu waajur daal yaayam mooy caat mais seen kër de wax dëgg yàlla jëfinu taaw la fay jëf xam nga tubaab lim soxla mooy ku fekke ci nit preuve mais ki damaa fekk ci moom lu bari mooy caatu kër ga mais taxawaayu taaw la fa taxawee seen waa kër jéppiwuñu ko koñ ba mu dëkk jéppiwuñu ko ay xaritam jéppiwuñu ko nit ku am jom la du dem mukk fenn fuñ koy yebe te fu ñu tudd nit fu ne dinañ ko tudd lu ko may mooy fullaam ak faydaam ak dignitéem ak xam moom mooy kan genre mel noonu nag boo ko amee cim réew danga leen di jàppale di leen ñaanal rek ñaanal ko yàlla ku yabu ñaanal ko yàlla daal merci waaw mbokk yi ñoo ko gisandoo tey lii lañ leen indiloon si euh, Joker TV dañoo seet si woon ki nga xam ne yaakaar naa ne kenn dootu ko présenté mooy xalitu xale yi jigéen ñi ñu koy wax Momo Novita euh, moom lañ seet si woon fi nga xam ne que de moo di liberté si kontaan nag euh, di am contentement bu baax a baax a dalal bi ñu dalal di ko ñaanal ouverture am bi yàlla na place bi nekk partout dans le monde di ko ñaanal yàlla defal ko jaamu gudd fan at wér gu yaram bu mu mën a sumbi leneen loo xam ne kon kon nee na dafa bëri ay projet di ko ñaanal yàlla defal ko si jaam bu baax a baax remercier Weuz sama xarit bi nga xam ne tey moom laa àndaloon ci caméraman bi euh, di remercier aussi ki nga xam ne que ne yaakaar naa ne nee naa la euh, mooy borom site internet bi ñu koy wax Maysa ñu ngi koy remercier aussi bu baax a baax di leen jox dig daje rek si beneen émission euh, ak ki nga xam ne que ne tey moom ngeen àndaloon ñu koy wax Touna Lissa di leen jox rek beneen émission rek at Joker TV ah nee naa la ñooy bomb merci beaucoup et à la prochaine incha allah.